d'accord après ça dina leen ko wax kon donc ñu dalal fi ki nga xam ne rek moom moo di Ahmed xalifa ñas ñas Kumba Abdallah ah ñu ngi lay nuyu Niass. waaw maa ngi lay fay maa ngi nuyu Sénégal. Mhm. nuyu àdduna bi di am ci ñëpp mbégte kontaante. Mhm. ci teewaay bi nga xam naa ko ci mhm. di rafetlu bu baax a baax nekk yi nga xam ni nekk nañ ko. aussi pour leeral. jafe-jafe yi nga xam ni xew ci réew mi. sa kàddu yi nga yëkkati jëmale ko ci Ousmane Sonko méttiwul. waaw xam nga kàddu yi kàddu la yoo xam ni parce que Sonko. Mhm. Sonko Sonko kankurang. Sonko kankurang lay def. Sonko li muy def la. kankurang mel na waaw loolu lay def parce que bu génnee ñu ne yëpp kankurang ba génn na ñu daw curiosité dem seeti ko. dem xool ko ne woy kànkurang baa ngoog kànkurang ba muy daw ndikee di tàllal loxo tàllal di ñu xam ni kànkurang la mm-hmm. Sonko ab kànkurang waaw moo tax bu ñaan Sonko loolu du politique c'est di mm-hmm. du politique parce que am na loo xam ni boo ko xoolee mm-hmm. xam ni nekkul loo xam ni politique la dëgg la waaw taxawaayab lay taxaw ñun yàgg nañ ci politique. est-ce que dafa am buzz ñun depuis jamonoy Senghor ba nëgë ni ñi ngi def loo xam ni politique la. man mii maa taaloon drapeau France. yow mii man mii taal naa drapeau France. li ma def Sonko ñemewu ko. mais dafa am buzz na xale bi dafa xew. waaw ma ne bi buzzu kankurang la. kankurang ah, boosu hmm, kankurang kon du di boosu du yàgg na kii la de kankurang la kankurang ba ñëw na xale ya daw na hmm. woy kankurang yaa ngoog ñu koy topp di daw hmm. waaye li mu def waroon a dem naan day bàyyi juma di dem ci jumaa loolu lislaam nangu mais nan la may wax muy wax ay aaya te aaya xamu ci mais mais li mu def non normal ma li jóge ci jóge foofu ñëw fee ñëw julli ji fa loolu. lu ci ne waroo tëb juma dem ci juma. ndax la loolu loolu ndax lan foo teg loolu na ci. kaw lu ñu ci wax yaa tëbin bin juma bin loolu juma. yaa tëbin bin juma. ma ne li ma wax leer na. yaa tëbin bin juma bin juma mi baati. soxna si soxna si li ma wax leer na. d'accorduma ci loolu ànduma ci loolu. soo ko jógee fii dem fee. lu ne Sonko warta bàyyi fii jumaa ne ma ngay dem ba Kaolack. mais euh, c'est pas évident non. dem pour jaxase pour perturber. il avait il allait là-bas pour perturber le mosquée de Léona Niassène. mais bu ko neexee dem c'est évident. waru koo perturber waaw Sonko li mu def waru koo def. Oh. c'est pas normal. kon jóge fii ñëw ba Kaolack loolu moo la métti ba gis nañ la mu def. mu ñëwaat Kaolack defaat loolu ñëw Kaolack bëgg a ruube. nga def nan ziar bi. nga génn nga génn génn looloo tax ma tontu ko parce que il n'a pas le droit de ruube le le parce que il a roubé le ziar ah allant jusqu'à jusqu'à allant jusqu'à Léona Niassène pour me défier et pour ruube. lu lu la ziyaar. Ah, kon da nga ni kon da ngaa yow da ngaa kon ndax lan parce que. loolu mais Ahmed loolu. c'est normal ko fa kankurang. ku ne am bésub la. déedéet da bàyyi ma wax. waaw kankurang la. waruñoo dem ba ñu ne dañuy ziyaar. xam li waral ziyaar ak li tax ñuy ziyaari waaye kankurang ñëw fa ñu topp ko naan kankurang baa ngoog jaaduwul waaw d'accorduma ci loolu waaw taxawaayab kankurang la waaye mais euh, moom demul woon pour demul woon pour julli ji dafa ñëwoon pour ziyaar soxna si ñun xam nañ Sonko maa la gën a xam sonko <laughs> ñëw na sama kër ñaari yoon seet si ma mm-hmm. kon xam naa sonko bu ma la waxee li gu fu yóbbu li ma la wax leer na taxawaayam kànkurang la naan si li may njaa kànke gamba kànke bange wala est-ce que yow du li nga xam ne mooy li mu gëj ci yow war ta def loolu parce que foofu waruta wax loolu taxawaayab kànkurang yow est-ce lu mu li mu gëj sa kër seet si la lu mu gëj sama kër waaw xam nga day ñëw daan ñëw ci yow souvent loolu xam nga daan ñëw souvent ci yow faalewuma ma loolu bii di ñëw souvent ci yow di la seet si kon mu gëj ko looloo tax bu la seet woon nii nii nii nii di nga ko baax di ngeen a juboo woon ma ne ko bul ñëw parce que kankurang du ma seet si. mais yow Ahmed dégg na la fi nga wax nga recevoir ko deux fois ma ne ba ma koy recevoir boobu du kankurang. ah kon kankurang da nga. ma ne may ma. <laughs>